soppale ñu xëy fekk fa Bougane Gueye Dany njiitul gëm sa bopp mu mer ba maara détaillé ndax candidature am ci diwaanu Ndakaaru dañu ko daal di rejeté nee na nag loolee ab complot la wax na ne nag dana dem fa mbaxana doone benn te nag lii jubluwaay bi mooy xàllal Diouf Sarr aw yoon ci diwaanu Ndakaaru waaye nag loolu du ñu ko nangu tey du ñu ko nangu lekk yéen a kaay gi du Sud Quotidien nee na bu ñu wax waxante dëgg opposition bi ñoo ngi ci njàqarik tiis yéen a kaay gi nee na liste Yewwi Askan Wi ca diwaanu Sam Notaire ak Golf Sud dañu ko rejeté Moustapha Guirassy sa diwaanu Kédougou moo jiite liste Yewwi Askan Wi moom tim dañu ko daal di rejeté yéene kaay gii di Les Échos nee na coalition bokk gis-gis moom tim listam ca Kaolack ak sa Bignona dañu ko rejeté kaay gii di L'As nee na yemuñu foofu rek ndax liste Yewwi Askan Wi ca diwaanu Saint-Louis dañu ko rejeté sa bopp sa diwaanu Saint-Louis tamit dañu ko rëkkale yéene kaay gi nee na bëri na ay coalition yoo xamante ni dañoo gàntal seen liste yi nga xam ne maanaam déposé woon nañ ko libération yéene kaay nañu Yewwi Askan Wi ca diwaanu département bu Bambey ci commune bii di Lambaye ak ca Gawane ak ca Réfane seen liste maanaam dafa furku la yéen a kaay gi de Les Échos xëy dañu xibaar naan ñu Adama Faye nag injustice dëgg la ñu ko teg ndax moom moo taxawal coalition defar sa gox waaye nag dañu ko tuumal ne ko sa couleur yi nga xam ne moom nga jël yow Adama Faye da ngaa niroo ak benn bokk yaakaar yéen a kaay gi di Walf Fadjri daan nay wax ne ku mu am nday ak ku ma mu amul nday moo am ci benn bokk yaakaar ndax ñi ànd ak Macky Sall bëri na ci ñoo xam ne ber nañu seen liste bopp amul yenn daan yoo xam ne teg nañu ko seen ndodd te dañoo nga xam ne mooy directeur de cabinet ministre bi ñu dénk wàllum yoon moom bi mu tegee liste boppam ngir nag nekk maire bu Kanel maanaam dañu ko dàq yéen a kaay gii di Vox Populi ñu xëy fekk fa Abdoulaye Gallo Diaw mu bokk ci parti socialiste nee na Macky Sall nga xam ne moom lay doxalee ak waa parti socialiste loole nag ma ngi firndeel ne ma ngi wor ki nga xam ne mooy Ousmane Tanor Dieng ma ngi trahir mémoire am ndax Macky Sall bëgg-bëgg moom ak ñi mu àndal mooy suqi parti socialiste ba ñu set wecce te loolee waruñu ko nangoo yéen a kaay gi xëy di ñu xibaar naan ñu Khalifa Sall mer na lool ci convocation bi nga xam ne convoqué nañ ko ba pare nag di woo askanu ndakaaru maanaam ñu génn taxaw défendre Barthélémy Dias moom Khalifa Sall daal nay ñaawlu bu baax a baax justice bi nga xam ne dañu koy jëfandikoo ngir xeex ay adversaire yéen a kaay gi di Dakar Times nee na nag Barthélémy Dias waruñu ko convoqué waaye nag li nga xam ne moo am ba des Sall bu ñu bëggee tranquillité ak stabilité mbiri Barthélémy Dias danañu ko bàyyi ba élection yu weeso ba tey ci biir journal bi moom Dakar Times nee na sénégalais lambda bi ci convocation Barthélémy Dias bi dafay jàpp ne dañu koo singali dafay jàpp ne dañu ko bëgg a bund xataal laas yéen a diiwaanu Ziguinchor nee na Abdoulaye Baldé suqi na Benoît Sambou ba mu set wecc Benoît Sambou deseetul dara ba pare nag yàq ko musiba ak mbelengaana ndax moom Abdoulaye Baldé nee na Benoît Sambou bu ma bàyyiwul dinaa wax ci moom loo xam ne musu leen koo xam musu leen koo dégg te nag fii si Ziguinchor bu dee nag nomewuñu ay cadre lépp nag Benoît Sambou moo ko waral yéene kaay gi xëy ci trafic passeport diplomatique yi nga xam ne am na ñaari député ji nga xam ne moom la la léegi tey député ëllëg yéenekaay gi di Rewmi Quotidien xëy séq waxtaan wu yaatu ak mbëggee mbëggee di aw waykat ñëpp xamee ko ci seen petit gàlle ndax foofee la fële yéenekaay gi nee na moom mbëggee xëy na ci casting bi nga xam ne moo am ci petit gàlle nee na petit gàlle ñu bari nañu koy ŋàññi wax ne dafa yàq xale yi waaye nag loolee amula moom mbëggee daan nay wax ne ay waajuram ba mu commencé mbir mi ba léegi maanaam ñoo ngi koy jàppale ay référence am ci lu jëm ci wàllu musique nee na Viviane la Kumba Gawlo ak Youssou Ndour wax na ay projet ma ma ngi ci yéenekaay gi di Rewmi Quotidien yéenekaay gi di Stades xëy